Assalamualaikum. saya ga amin gan bayan baye nan ci am gan in minute senta. Am ngeen. Wallahi asib ma ci wuy ma ci pala. Yeen dëkk yi ne amu leen ndox wala seen forage dem Facebook ci compte Cheikh janji. Get bin de fa numéro téléphone localisation dëkk bi fu mu tudd nu tudd fu mu ban commune ban communauté teriral ban département ban zarondisma. Gen wax dëgër di ñàkk ndox bi nu mu toll depuis kan ah ngeen ko mënul bind nga wut ku la bindal mu leer nañ message bu leer nañ ci facebook gu Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Dieye l'officiel waaw guleet guleet ñu am ministre boo xam ne daa ñëw ba ci askan wi demande leen seeni soxla wallaay asim Cheikh Tidiane Dieye mii yàlla nañu ko yàlla sàmmal donc ma baamtuwaat ko ñi nga xam dañoo am problème mu ndox mu ñu naan bu ñu sangoo bu seen jur lekk bu astafurlah bu seen jur naan wallaay Achim dem leen ci page officielle Facebook bu Cheikh Tidiane Dieye ngeen bind fa dëkk bi ngeen nekk nu mu tudd wala diwaan bi ngeen nekk nu mu tudd localisation bi joxe numéro téléphone bu ñu leen mën a waawee dégg ngeen waaw leen góor <laughs> ak Cheikh Tidiane Dieye ñëppay naan.